Euh, jërëjëf euh, bokki julli li bokki taalibe yi ginnaaw mu leen nuyoo ziar leen jiital si ziar bi Cheikh Sidil Muxtaar ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér bokk yi nga xamante ni bi yéen a àndak ñun al ci Al Khadima TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen wax ne nag tey jii la bisu xasida Touba dëppoog 12 janvier di bis bi nga xamante ni bi waa kuréelu mooy bu naafiwu mi yëkk mi lëkkale kuréel yi xasida yi nekk biir Touba yëpp ñoo koy amal at mu ne ren nag ñu am mbégte bu baax a baax mu dëppoog neuvième édition di juróom-ñeenteeli at waa mooy bu naafi def bisu xasida bi nin ko faral di defee nag tey jii tàmbali nañ koog njàngam alxuraan ak njàngam xasida ànd koog mboolem kuréelu xasida yi ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu xasida ci kilifteefu Serigne Amsatou nag moom Serigne bu waaye tamit ak Serigne Moustapha Mahmadan ñi nga xamante ne bii ñooy euh, jëwriñu liggéey bi waaye ànd koog Serigne Cheikh Dieng mii président kuréel gi ànd koog bokk julli ak bokki taal bi yëpp kon bokk yi liggéey bi commencé na. Euh, xëyee nañ ko ak njàngam xulaan ni ñu ko waxee bokki jullit ak bokki taalibe bi yëpp a ngi ñëw kon bokki teelu Alxadime TV lépp loo xamante ni bi aju na ca bis bi danañ leen ko indil di leen ziyaare bu baax a baax laata loolu nag ñu ànd ak sëñ Cheikh Dieng bu ko defee mi jëwriñ ji mu mën ñoo indil nag fu liggéey bi toll kon sëñ Cheikh Dieng euh, yaa ngi en direct Alxadimiya fu liggéey bi toll bi ngeen xëy ginnaaw nag bu ngeen ko waajalee ci wàccaay wu am solo ni nga ko waxee wàccaay woo xamante ne bii njàngam alxuraan la ak njàngam xasida ak fépp foo xamante ne bi kilifa nekk na te war a yëg bis bi ngeen dem fa tey ji ñu dugg ci bis bi fu bis bi toll. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mouride jëf ngeen di ziara di leen sant bu baax li nga laaj lu am solo la ngir wàccaay bis bi fi mu ne fu mu toll fi mu toll mooy activités yi kenn ku ci nekk li la war ci liggéey bi kenn ku nekk yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax mboolem commission yi ñu tegoon kenn ku ci ne li la ci war ci bis bi yaa ngi koy def waaye xam ngeen ne bisu xasida bu Touba ni mu baaxoo di defee muy saa bu ne bu ñu xëyee ñu tàmbali njàngam alxuraan mi ak njàngam xasida mi ci durus waaye ñi yor kuréel gi it ñoom it muy was conservatoire bi àndoo ci wàllu njàngam yëkkati mi loolu bu ñu xëyee ba léegi ci la ñu nekk bis bi nag ni nga ko laajee léegi ñu ngi ciy séntu ay kilifa yu mag wax dëgg yàlla ngir ñu war a ànd ak ñoom ci bis bi buñ ci tuddee ku mel ne Cheikh Basir mi nga xam ne tey mooy porte-parole yoon wi ñu ngi ko séntu ci bis bi waaye di ci séentu sëñ Maamor Mbàkke mi nga xam ne moom sëñ Fallu moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm alxuraan a xasiida ci yoon wi moom it ñu ngi koy séentu ci bis bi ak mboolem kilifa yi nga xamante ne yëpp ñu ngi ci yoon wi ba ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak kilifa yëpp ñu ngi leen ci séentu ndax kenn ku ci nekk wax nga ne bis bii daal sunu bisa te li la ci li la ci gënal mooy di ko teewe waaye du bis sax bu ñuy yàppale kon loolu defe naa ne lu am solo la kon nag ñun ñi nga xam ne la yàlla dogal ñu ne ci euh, bopp liggéey bi di ci soññ mbokki taalibe yi ñu ngi leen ci sant bu baax ndax kenn ku ci ne la war yaa ngi koy def waaye xam ngeen ne barab bii ñu koy defee day barabu cosaan muy daaru xudduus ñu koy defee fii ci mbaarum Loyaal Hamdi mi jàkkaarloog jàkka ji nga xamante ne bii sëriñ bi wax nañ fi la njëkk a gis ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa bu mbokki taalibe yi dellusiwaatee fii tey di fi di fi waajale liggéey bu am solo boobu def nañ leen war kon daal ñu ngi ciy séntu ñëpp bàyyi wu ñu kenn nañ xam ne bisu xasida bu Tuubaa bisub ñëpp la képp ku yëngu ci xasida sa bis la kon ñu ngi ciy séntu ñëpp incha allah danañ ko xëyee nii ci 8 heures ji ci ni ma ko waxee ñaam alxuraan xasida dana yendu ba jant soo ñu fas yéenee wéyalaat guddi gi bu bët set njàng bu amee lu koy doog waxtu julli lay doon bu ñu noppee dañ ciy delluwaat kuréel gu jóg bu bu bu mu noppee bu jógee moroom toog rajaskat ak ñëpp ci biir liggéey bi la ñu bokk ndax ñu bari ci ñoom it ñu ngi leen ci séentu ak raison yi nga xam ne ñoo ne ci Sénégal fenn fu ci ne ak kuréel dana fa bàyyi ko teew ci liggéey bi kon daal noonu lañ waajale bis bi ci wàllu waajtaay yi nga xamante ni moo aju bis xasida bi lépp kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa euh, euh, la bépp secteur boo xamante ne bii mi ngi ci liggéey bi tamit danañ fa dem jokkoog jëwriñ ja ngir mën leen indil li nga xamante ne bii moom moo nar a am ci bis bi kon ñu jox leen dig daje ci kanam tuuti. Euh, jërëjëf euh, mbokk yi nga xamante ni bi yéen a ngi ànd ak ñun ci bisu xasida Touba euh, waa kuréelu mooy bi naa fii di ko amal at mu nekk ren nag mu dëppook neuvième édition ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci ànd ak ngeen ñu ànd di jaajëfal bu baax a baax waa Touba Vision ànd kook tamit Al Khadima TV ginnaaw bu ngeen gisee li nga xamante ni mooy ubbiteeb liggéey bi ak présentation bi nga xamante ni amal nañ ko ci jëwriñ ji di Cheikh jëng waaye ñu ngi taxaw ak ñenn ci ñoo xam jëwriñ lañ waaye mu ci tuddee Serigne Khadim Diop Naim njëkk jiite mbooloo mi liggéey ci liggéey bu am solo ndax liggéey boo gis rek fondement ba am na solo euh, ba tey jii liggéey bi daanaka di dox ba waxtu wi sëñ Xaadim bis bi tàmbali na ñi ngi ci suba gi lan nga yëg ak tey jii bisu xasida bi solo su mu am ak lan ngay wax ñi nga xamante ni ñi ngi ñuy seetaan te nekk ci biir réew mi ak bitim réew. salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Mouride ñooy lay delloo nuyoo bi di ziar suñu mbokk yi ñuy jàkkaarlool ak mbokk yi nga xam ne ñu ci àdduna bi yëpp. di bàyyi xel bis bi ak fu ñu mën a nekk noo ngi leen di wax ne yëg-yëg gi moom benn la mooy yëg Serigne Touba rek nga ci yëg jataayu xasida du xasida bu mel nii boo xam ne saa soo agsee li ngay njëkk a def mooy ñu nekk ci alxuraan ji nekk ci ñi nekk ci durus bi nekk ci kuréel yi nekk ne di yëkkati ak rajaskat yi xëyee ko noonu fas yéene ko toppee noonu ngoon gi guddi gi ba àggaat ci fajar loola mu nekk loo xam ne nii ba ñu ko commencé léegi ni nga ko waxee bii di neuvième édition bi mosta jóg noonu kese lay amee amul leneen lu muy rax sell Serigne Touba rek nga ciy yéeg kon boog yëg-yëg gi moom benn Serigne Touba nga ciy yëg yàlla nga ciy yëg loolu la loolu moom moom mooy yëg-yëg yi deneen di ci am itam di xamal mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi fu nekk di bàyyi xel yëg ne bis bi ni nga ko waxee tàmbali na ci suba ba léegi ba waxtu wi ñu toll nii nii ñoo ngi ci ñenn ñi ñëw nan ñi sàkku itam ñi fu waay mën a nekkit mu ñëw ànd ak ñun mbir mi ndax itam mbir la moo xam ne ñëpp a ko moom bu ñu waxee Touba nag bisu xasida Touba xay na euh, dafa spécial ndax waa Touba ñëpp a ci bokk xëy na nag nit euh, euh, buñ ko waxee kuréel yi ñoom ñoo koy taxawu jëmmi kuréel yi ñoom ñooy taxawu liggéey bi waaye dañ ko ànd ak mbooleem ñëpp moo xam jànkatu rajas la wala moo xam jànkatu aw la wala moo xam kuy duus la wala moo xam kuy bége xasida la waaye bépp taalibe daal na la woon ne daa dañoo ànd liggéey bii nii tabaaraka jërëjëf euh, jërëjëf kon mbokk yi kii mooy sëñ Xaadim Diop euh, njëkk a jiite liggéey bi waaye feggoog sëñ Cheikh Fall mi nga xamante ne bi moom it yor na ci secteur bu am solo muy social waaye sëñ Cheikh Mbaj tamit dana ñëw ci moom moom it mu nekk wàllu finance ak bépp secteur boo xamante ne bi rek mi ci biir liggéey bi danañ ànd ak yéen ngir indil leen fuñ toll ci liggéey bi kon bokk yi ci kanam tuuti jërëjëf mbokk euh, jullit yi euh, ba tey rek ñu ngi taxaw ak euh, sëriñ xaadim Diop Naim sëriñ Khadim Job jannatu mi nga xamante ni bu ñu wax bisu xasida lépp ci liggéey bi moo ko yor muy wàllu njàngam alxuraan mi ak njàngam xasida bi sëñ xaadim liggéey bi yàlla dogal na agsi nañ ci fan ngeen ci toll ak lan ngeen waajal ci li jëm ci alxuraan ak xasida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatuh. barakaatu sëriñ Mourine Mbaye ñoo ngi lay ziare baax di la nuyu baax di ñaan sunu nuyu fekk la jàmm mel ni laaj bi mu xam naa da nga ne cëb liggéey waaye loo xam la ndax liggéey bi ñun ñun ak yow ñoo ko bokk fi euh, mu commencé ba fi muy àgg ñoo ko yomb mu mel ni li nga waxee euh, njàngum alxuraan mi ñoo nga ci wàccaayu alxuraan ban commencé wàccaayu bis ba léegi dem nañ ci daara alxuraan yi nga xamante ñoo nekk Touba ak yi ko wër dem ci ki nga xamante mooy seen xaadi jaxate mi nga xam moo jiite rabita alxuraan waxtaan ci ak yéen daara yi nga xamante ñoo nekk ci bi dëkk bi ak yi nga xam ne ñoo wër dëkk bi wàccaay nekk ci wàccaayu njàngum alxuraan ak ak ak mu xasida ndax day mel ni Serigne Touba lu ko waay defal boo toppee ak bëggam wala lam digle da ke koy jiital alxuraan baril ko ca loolu kon moo tax ñu faagu loolu xam loolu dem ci daara alxuraan yi nga xam ñoo nekk biir Touba ak yu ndax ñoom ànd mën a ànd ak ñoom liggéey bi saagit ñu ñu jàppale ci jàngu alxuraan baax njàng mi toll njàngam alxuraan meeg njàng xasida njàng mi tamit eh, am nañ lim yu bare bare bare bare yoo xamante ni ñëwagul na waaye bala ñu mën a xam lépp taux bi ni mu toll lépp dañuy bàyyi ba mu fi jàll ñu doog a mën a xam ne nangami kaamil am nañ ko ak lim ci ay xasida ak durus waaye fi mu may wax ak yow daal amagun nañ lu toll ci ay kaamil alxuraan li ci amagun amal na gën lu toll juróom-ñaar fukk te loolu day day kon di yendu mhm. demet ba ba nga xam ni fanaan waaye bu ñu paree ba pare ba nga xamee bis bi jàll nag ci lañ mën a wax taux bi nga xamante ne moom lañ mën a am ci ay kaamil ak loolu lañ mën a am ci ci ci ci ay limu bisri yëpp waaw ñu ñaan it képp koo ni am nga ci ab lim te nga xam ne ñëwunu ceebit ñu ñaan nga jàll ko ci numéro yi nga xamante ñoo yor liggéey bi lu mel ni 77 903 03 77 wala 686 36 37 wala 783 63 35 Tigo di wax ñi nga xam ne ñoo nekk Europe ak ñi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam du Sénégal ñoo ngi ci ànd ak ñoom di di di leen fàttali bis bee ñu di ànd koog di ci sant ku mel ni sunu jëwriñ yi nga xam ne mi ngi Italie ànd koog ñun jëmmi jamono ju ne muy Baye Dame Seye ak euh, soxna Adama Seck mi nga xam ne moom mi ngi mi ngi Bruxelles tey nga xam ne lii moo di ak bëkkam ak euh, suma mag ñuy wax Cheikh Diop nekk Amérique ñoom nga xam ñoom ñoom lañu àndal liggéey bi ñoom ñoo leen di fàttali di ñaari ñu ñu ñu ay lim yoo xamante bu bis bi jàll ñu mën noo jox na ko ñu ànd koog ñoom di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa